a xëy liggéey. Mm-hmm. ubbi tey jàng tey ubbi jàng tey. waaw ubbi tey jàng tay boobu nga xamante ni bii moom la wax loolu mënul ne ci ku defar maanaam bu fekkee ni mu ni mu sens bi mu ko jëlee comparaison n'est pas mm-hmm. parce que tey boo nee ubbi tey jàng tey. Mm-hmm. loolu dafa fekk école yaak lépp pare na mais fii nag dañuy defaraat daraa parewut maanaam kii ñëw. mun mënta ñëw rek tegu ci lii fi ne continuer bu dee nag moom dafa pare pour tegu ci mais est-ce que bi moom moo tax muy wax waaw euh, continuité mais journaliste yi ci seen jëmmi bopp ñoo war tax di ree hmm. parce que loolu moo tax réew mi moom parensaay da nga naan euh, ñenn ñi est-ce que diplôme yi ñu leen di jox est-ce que mérité nañ ko wala boog est-ce que càmbar nañ leen hmm. parce que bu fekkente ni bi tey Amadou Ba dafa wax ne da nga ko war a poser question ne ko kon yow pour yow dëkk bi dara normal lépp normal lépp normal parce que bu fekkee ni lépp normal ci lay parce que école balaa ñuy ubbi dañuy xool école yi ndax école yi ci seen jëmmi bopp ndox ma mbënn ma sonalu leen ndax lii ndax lii ndax lii ndax lépp yemb na mm-hmm. loolu moo tax ñu naan ubbi tey jàng tey mais bu dee lépp yembul ubbi tey jàng tey du mën a ne mm-hmm. comprendre léegi nag fi mu toll nii réew mi ndax lépp yemb na bu fekkee ne ñoom d'accord nañ ni lépp yemb na nag kon ok <laughs> ah. mais defe naa ne ñii nga xamante ne bi ñu ngi jóg indi beneen gis-gis beneen lool ñoom jàpp nañ ni réew mi dafa laaj defaraat dafa laaj defar moo tax mënuñoo mhm. ubbi tey mhm. jàng mhm. maanaam dañuy defaraat bu ñu defaraatee ba pare soog a teg yëf yi ci yoon comprendre faaw ñu defaraat defaraat parce que dafa am bànqaas yu bari yoo xamante ne bi dafa nërmeelu te yooyu nërmeelu faaw ñu joyanti ko ba mu jub nga xam ni kii kii kay defar day taxaw ci lu dëgër ngir soog a mën a nag wax ne yoon waa ngi hmm. waaw mi ngi mel ni rek ab oto bu ñu la jox hmm. ab chauffeur vérifié woo huile ba hmm. vérifié woo ndox ma xooloo ndax lii ak lële ñu jox la rek nga ne nga toog ci volant bi rek dawal <laughs> waaw balaa ngay dawal di nga xam oto bi ndax am nay frein ndax am na lii ndax am na lii ndax am na lii yooyu yëpp da koy mm-hmm. càmbar boo ko càmbaree ba pare mm-hmm. nga ne ah waaw oto bi de kon de léegi war naa mën a dem mm-hmm. comprendre nga soog a teg oto bi ci tëli bi di dem waaye nag Amadou moom comme yàlla dafa def mu tàmm oto bu bon xam nga chauffeur bu tàmmee oto bu njànkar boo ko joxaatee ab oto <laughs> amul problème moom day ñëw rek départ wax na tamit moom xam naa oto bi parce que Sénégal tey bu ñu ko doon màndargaal ne ab oto la. dañuy jàpp ni oto la boo xamante ni bii eh, kii baa ngay senn. moom d'ailleurs def na si affaire boobu sa benn genre. amul frein boo xamante ne nii moo ngi ci biir oto bi. waaw non c'est que xam nga dama bëgg <laughs> dama bëgg comme que dama na ba oto def publicité dama bëgg wax ne ko oto bii ñuy joxe. waaw oto bi amul frein. Mm. yaa ngi dégg <laughs> oto bi. amul eh, accélérateur eh, kii no accélérateur ba kañ kii ba nu mu tuddati dafa bloqué nu mu tuddati day xërëri rek di dem waaw <laughs> vitesse ya duggut na mu war a duggee waaye moom comme que tàmm na ko. waaw boo ko joxee def jàpp na ni oto bu baax la. dina ci kalaj kalaj ji ba jéem mais ki nga xam ne xool na ko ba ne oto bi baaxut buñ ko ko joxee. Hmm. dina ne oto bii de faaw ñu defar lii faaw ñu defar lii bu fekkee ne dañoo bëgg oto bi dem longue voyage. Hmm. faaw lii ak lii dinañ ko def faw ñu changer moteur bi faaw lii ñu def ko faaw lii faw lii faw lii ba pare loolu lépp bu ko defaree ba noppi ne waaw oto bi de wax dëgg fa yàlla fi mu toll nii nag mën naa dem Tamba nga soog a dugg nag départ départ waaw bu boobaa boo defaree ba pare nag boo déparé ba ci yoon nag mu am ay jafe-jafe ñu xam ni kon yow sa say mbir dese woon naa leer ñu soog a comprendre waaye moom comme que moom dafa dañ ko nar a jox oto bi nag mu départ Euh, mm-hmm. ma jigéen wax ah. kon damay wax ni yërëm naa ko. yërëm xanaa rek sensibiliser électeurs yi. waaw loolu baax na loolu moom. Mm-hmm. jot nañu ñu def ko puisque tey la aljuma xam naa lundi lañ fi ñëwaat. Mm-hmm. yal na yàlla def nag ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam. su ko defee dañuy ñëw fii ak président bu bees. waaw wax ni wax ni ma jigéen. Euh, di ñaanaat encore une fois sénégalais yëpp. Mm. parce que xam nga am na ñu bari dañuy wax naan. non man vraiment ban vote jaraluma ko kërëb mm-hmm. kërëb man kii xam nga ah, affaire politique sama yoon nekku ci man daal affaire yi faalewu ma gars yi ak ku falu baax na yooyu amut solo xam nga li am solo mm-hmm. mooy sénégalais bu nekk jafe daal di war naa xam mm-hmm. ni lii lu ko war la sénégalais bu ne war naa jóg képp koo xam ne am nga kart devoir la nga jóg dem voter li ki la neex à chaque fois dañuy gis ni liy voté day néew lool par rapport ak li nga xamante ni bii mooy li euh, bindu mhm. ñi ngi ñaan nag képp koo xam ne bindu nga. parce que nee nañ 7 képp koo xam ne bindu nga. war nga mën a dem euh, nga daa dee jóg dem voté ji def ko yitte. Mhm. tànn kenn leen mais seetal kala doy. Mhm. ci li nga xamante ni mooy. li nga jot a dégg ak li nga gis ak li ñu romb mhm. ngeen bañ cee fàtte dara mhm. votel ka nga xam ni mhm. moom nga war a votel ñu bañ di yóbbaale ay mar mandarga ak ay yooyu dindi leen photo profil yi sax dindi leen ko yooyu yëpp waaw waxtaan wi sax nekk fa di waxtaanee diw dina def léegi dina def yooyu yëpp bu kenn provoqué kenn ñu daal di am élection ci jàmm ak salaam voté bu ñu ngoonee nit ñi ka gañe ñu xam ko bu fekkee ne premier tour la yem kañu gañe ka euh, félicité ka gañe bu ko defee Sénégal ñu xëy ci altine ci jàmm ak salaam yàlla nañu ko sunu borom defar yàlla mën na ko yàlla na ko def amiin yaa rabbi di ñaanal ñëpp jàmm mm. ñu dem ci élection yi ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin Sénégal gañe jëm ca kaw. waaw ah, parce que benn la ñuy am te ñun mm-hmm. ñëpp benn la en tout cas ñooy àndaat bokk liggéey bi. Mm-hmm. moo tax nag képp koo xam ne xëy nga rek defal li la war bañ a répondre benn provocation parce que yooyu mënu ci ñàkk nañoo xam ne rek benn journée la te day jàll lépp lu ci waaye def lu nekk rek après ci nettali lay mujj donc yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal. defal ko mboolem jullit